ci gune kër gi ngóore ngóoro galay ngóore waay waay koor tigi tigi tigi refu o koor ka refa jambar ngóore ngóoro galay ngóore waay waay ka refa o koor bona ko bon kan 1948, Sokosim construit le Sénégal. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yaa ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa ne kër gi ne lu yaa waxtaan ak ñoom a gën a yomb waxtaan ak borom kër gi. voilà jërëjëf mbokk yi euh, ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futurs média seen émission sama kër euh, tey nag euh, ñi ngi fii ci seen kër góor gi. ñu ngi ci fond de l'habitat social bu ñu ne fond de l'habitat social nag fa nekk ab banqaas bi nga xamante ni ci la doy jëriñ ngi ñu dénk wàllum Euh, euh, wàllum tabax mi euh, kon na la rek daal di nekk xam ngeen ne ñoom suñu ay partenaires lañu ay nit yi nga xamante ni depuis des années ñi ngi gisante donc ñooñu ay partenaires naturels lañu donc tey nag dañoo ñëw fii ci FHS. pour waxtaanee lu jëm ci programme bu 100000 yi parce que euh, euh, laa ci bëri na am na ay interrogations yu bëri yi nga xamante ni euh, sénégalais yi ñu ngi koy rek daal di amal par rapport ak programme bi ni mel tey nag on a tapé à la bonne porte pour pouvoir vous donner la bonne information Ousmane Wade moo jiite fond bi Ousmane maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Dieynaba maa ngi lay nuyu bu baax. sama partenaire stratégique de très longue date. <laughs> merci beaucoup di la sant di la gërëm. Uh-huh. ci occasion bi ñu jox tey ñu mën a mm. waxtaan ak sénégalais yi. Uh-huh. ci politique gu chef de l' état bi nga xam ne am na solo lool muy politique bu jëm ci wàllu dëkkuwaay. Mm-hmm. sénégalais boo mën a dajeel boo mën a gis bëgg-bëggam nekk na am dëkkuwaay. Mm-hmm. président de la république aussi comprendre ko. jël ko boole ko parmi les secteurs prioritaires mm-hmm. qui doivent porter le le plan Sénégal émergent donc maa ngi lay sant di la gërëm bu baax ci occasion bi nga ma jox tey uh-huh. ma mën a waxtaan ak sénégalais yi uh-huh. ci fi ñu toll ci programme boobu uh-huh. uh, chaque fois dañuy amoon mbébét waxtaan ak yow mais chaque fois li nga ñu doon wax rek saa yu jotee dinañ ci rek uh, mën a wax ba sénégalais yi mën ci rek uh, daal di gindeeku kon tey jii nii la jot ñu mën a waxtaan ak yow di la ci gërëm bu baax a baax mais dañuy dégg fonds de l'habitat social saa su ne dañ koy dégg ci système bi nga xamante ne moom moo donc mooy soubassement wu Euh, euh, programme 100 000 logements euh, en termes beaucoup plus simples ndax suñu mbokk téléspectateurs yi ñu gën ko mën a comprendre lan mooy fonds de l'habitat social. merci Dieynaba comme vous avez dit on va essayer de faire simple. simple <laughs> pour yi dégg fonds pour l'habitat social mën a xam mooy mhm. lan. Mhm. alors wax nga ko léegi. président de la république moo bëgg jàppale sénégalais bu nekk. Mhm. mu am dëkkuwaay. ndax au-delà le fait que mu nekk sutura. ci suñu société bi. dafa nekk également un élément qui contribue dans la croissance économique notamment dans le plan Sénégal émergent comme ni ma ko waxee léegi moo tax président jox ko solo ci euh, politique sociale yi nga xam ne moom lay mëne dans le cadre donc de son programme alors le fonds pour l'habitat social nekk euh, banqaas bu bees bu ñu créer mu war a contribuer ci cent mille logements yi alors lan moo ciy rôlam ci programme cent mille logements ndax euh, defar kër am na mais le plus important mooy jënd kër gi. kër yi bu ñu ko tabaxee ba pare nan la ñuy def ba sénégalais man cee jot. loolu mooy li nga xam ne question bu centrale question bu am solo boo xam ne président de la république moom la adressé ba créer fonds pour l'habitat social. donc fonds pour l'habitat social bu ñuy def simple dañ naan banqaas bu bees bu créé président de la république créé pour mu jàppale sénégalais bu nekk. ak boo mën a nekk ak revenu boo mën a nekk. ak dëkk boo mën a nekk muy ci biir Sénégal muy à l'étranger ak ci looy mën a yëngatu su ma waxee ne ci looy mën a yëngatu foofu dañuy leeral ne du pour fonctionnaires yi seulement. ñi nekk ci secteur informel voilà ñi mm-hmm. informel ci lañ bokk artisans yi ci lañ bokk agriculteurs ci lañ bokk éleveurs yi ci lañ bokk. képp kuy yëngatu ci biir Sénégal ci programme bi nga bokk président daf ne bu ñu écarter kenn. Mm-hmm. loolu moo tax mu créer bànqaas bu bees boo xam ne mooy jàppale sénégalais yooyu. Mm-hmm. quel que quel que soit ce pays de résidence ñu jàppale la ba nga mën a jot ci kër yi nga xam ne ñu ngi koy tabax ci plan Sénégal ci euh, programme 100 000 mhm. donc loolu donc kenn du wax programme 100 000 logements te doo wax FHS. effectivement parce que parce que bu ñu tabaxee ba pare FHS mooy ñëw jàppale sénégalais yi. Mhm. mooy ñëw seeti leen jëli leen jàppale leen ba ñu mën a am kër. Mhm. FHS nan la koy defee c'est le plus important. aujourd'hui li ñu laajte mooy bindu rek ci plateforme bi. www point 100 000 logements point com. Mhm. su la neexee aussi nga def point sm. Sénégal yi loo rek lañ leen laaj bindu soo bindoo ba pare le fonds pour l'habitat social ñoo lay woo ndax fi nga bindu bàyyi nga fa say contact am na mhm. contact téléphonique am na contact email. Mhm. contact yooyu lay suñu équipe bi di jël woo leen bu ñu leen wooyee ñu ñëw convoqué leen fii ci suñu bureau yi defal leen li ñu tuddee profilage. profilage mooy fexe bañ compléter seen dossier. parce que bi ñuy bindu ci plateforme bi. déclaratif rek la ñu defoon fii laay liggéeyee am naa temps de revenu donc c'était le système déclaratif. Mhm. donc soxla nañ nag ñu jàkkaarlook sénégalais boobu bindu woon mu jox ñu ay këyitam yi mu déclaré ci plateforme bi ñu constituer dossier am. Mhm. dossier yooyu la ñuy jël jébbal ko banque bi banque bi moom it saytuwaat ko xool kii ndax kër gi nan la ko mën a amee. Mhm. ci ban durée ñenn ñi mën naa nekk 10 ans su banque bi xoolee li ngay liggéey. xool say revenu ñenn ñi mën nañoo nekk quinze ans. Mm-hmm. ñenn ñi mën nañ ko am ci 20 ans. Mm-hmm. xool condition yi également ci ban taux. Mm-hmm. banque bi tamit dina xool ndax ban garantie ngay soxla. foofu également ci la ñuy insister ci rôle bi nga xam ne fonds pour l'habitat social moom lay joué. mooy président de la république moo décidé sénégalais bu daan bëgg kër dem ci banque. di leb banque bi dalay laaj. ay garantie garantie yooyu nag moom la état du Sénégal jël décision fayal ko sénégalais bi. ok moom la fonds pour l'habitat social. lëkkaloo ci ak beneen banqaasu gouvernement bi mm. muy fonds de garantie des investissements prioritaires fonds GIP ñoo ci lëkkaloo ak banque yépp de sorte que suñu yóbboo sa dossier bi ci banque bi bu banque bi xoolee condition yi ñu la war a lebalee banque bi def naa ne kii da ngeen koy garantie à tant ko calé à deux niveaux. Mhm. bu dee salarié la boo xam ne day am fayee ko am payoram par weer. Mhm. kooku trente cinq pour cent lañ koy garantie. ndax kooku risque bi bëriwut. Mhm. ndax kooku am na payoor boo xam ne day jaar ci banque bi weer wu nekk. kooku bëriwul risque pour mu bañ a fay. donc kooku mais malgré tout état du Sénégal da koy garantie à trente cinq pour cent. njëgu kër gi. moom la état du Sénégal à travers. le fonds pour l'habitat social di déposé ci banque am keneen ki nga xam ne moo nekk secteur informel mooy ki nga xam ne amul revenu bu régulier ki nekk ci napp ki nekk ci mbay ki nekk ci sàmm ki nekk ci artisanat exact ñoom ñëpp mhm. kooku état cinquante pour cent lay jël garantie mhm. mooy moitié njëgu kër gi mhm. kër gi bu dee jaar douze millions six millions la état du Sénégal di jël garantie yóbbu ko ci banque boobu mu nekk garantie garantie boobu mooy tax banque bi wóolu la man laa lebal ci ay vingt vingt cinq ans. Mhm. lu mu gën a gudd. li ngay fay par weer gën a gën a gën a gën a gën oyof. loolu nag mooy objectif politique bi mooy oyofal. Mhm. sénégalais yi ñu mën a am kër. di génn ci seen gafaka tuuti par mhm. dëkk seen biir kër. loolu mooy rôle fonds pour l'habitat social mu doon banqaas bu bees bu président la république créé. pour jàppale sénégalais bu nekk ak foo mën a nekk. ñu woo la profilé la nga mën a am kër nga may ma rek ma leeral ne. bu njëkk pour nga am kër kenn ku nekk xam nga ne li ñuy tuddee le parcours du combattant la woon. Mm-hmm, mm-hmm. soit da ngay dem wëri promoteur bu am projet. soit nga dem wëri banque. Mm-hmm. soit nga dem wëri notaire. circuit boobu yëpp di nga ko def. fii nag ñu fexe ci njiitalu njiitu sunu ministre Abdoulaye Seydou Sow. mu digal ñu ñu créer li ñu tuddee fii guichet unique. guichet unique bi mooy rassembler acteurs yooyu yëpp ma la wax. te amoo promoteur munoo am kër te demoo ci banque munoo am kër te demoo ci notaire munoo am kër te demoo ci assureur loolu lépp nag ñu dajale leen fii nga xam ne sénégalais bi léegi soxla wut muy wari ñooñu ñëpp mm. bu inscrire ñu ñu jël numéro de woo ko mu ñëw fii bu ñëwee fii dafiy fekk ñooñu ñëpp mm. su fekkee ñooñu ñëpp ñu yombalal ko loolu lépp donc non seulement dañuy réduire procédure yi mais la sécurité également. c'est ça sénégalais bi dina wóolu li def xaalisam fu mu koy dugal fu wóor lay doon. Mm. leneen li mu ci bëgg a leeral également mooy laajuñu la apport loolu également ci mbaaxaayu politique chef de l'état la. Mm. bu njëkk danga daan bëgg kër dañ lay laaj apport bii amul apport. dañ lay laaj garantie boo demee ci banque bii ñun ñoo lay joxal garanti mm. donc in fine le sénégalais lan lay def. bindu rek ñu woole nga ñëw. jour boo jotee say clé nag dugg sa biir kër. nga doog a commencé nag di fay par weer. justement euh, sànq yaa ngi wax ne avant euh, boo bëggee kër euh, parcours du combattant la. Mhm. mais bii nii mu nekk parcours mu nekk parcours de de de l'acquéreur. exactement comme nu ma ko mën comme nu ma ko mën a waxee sànq wax nga ko profilage bi. Mhm. boo leen xësee bu ñu ñëwee. Mhm. Euh, donc ni ñu leen di dalalee. Euh, maanaam bu ñu inscrire ba pare ñu woo leen ba jël seen dossier yóbbu ko au niveau euh, donc de la banque. léegi bu ñu leen nangulee. donc seen seen seen crédit. Mhm. comment ça se passe. balaa may ñëw ci question bi nga xamante ni peut-être mi ngi mi ngi ci ci question sénégalais ci ci xelu sénégale yu bari bu ñu leen accepté leen seen crédit. c'est ça alors c'est très mhm. comme ni ma la ko waxee moom boo bindoo ci plateforme ba pare ñun ñoo lay woo. Mhm. ne la. proposé nañ la programme fi nga bindu. Mhm. parce que booy bindoo également da ngay choisir sa localité. d'accord da nga naan Bambilor laa bëgg Kaolack laa bëgg Fatick laa bëgg yow yaay wax fu la neex. foofu su programme bi produire ay logement rek ñu woo la suñ la woowee boo ñëwee ñun dañ lay proposer duñ la woo mukk te amuñ proposition concrete concrète. Mhm. ñu profiler pour profiler. ñu la woowee rek dañ lay defal proposition soo ñëwee da nga fi fekk promoteur bi également mu njëkk la defal une visite virtuelle c'est-à-dire que mu la fi projet bi nekk fi kër gi nekk. à la fin danañ defaat visite physique boo xam ne dañuy ànd ak moom ci terrain bi mu gis kër gi doo ko valider totalement donc suñ ko defalee loolu ba mu ñëw ñu constituer dossier am xam ay revenu xam ñaata lay am par weer mën na nekk ay revenu yoo xam ne ci mbay mi lay jóge ci napp bi lay jóge mën na nekk fonctionnaire salaire lay jóge mm-hmm. donc quel que la le bu ñu ko jëlee après dañ koy classé buñ ko joxee banque bi banque bi moo naan kii mën naa ko lebal d'accord ci fukki at mm-hmm. fukki at ak juróom fukki at ñaar fukki at ak juróom en fonction de cela mu ne par weer lii lay joxe. te loolu day tenir compte ci garantie bi nga xam ne état bi joxe na ko. 50 pour cent xaaju njëgu kër gi. Mhm. wala 30 banque bi déposé la ko mhm. euh, état du Sénégal déposé la ko ci banque bi. Mhm. banque bi loolu moo koy permettre mu lebal la ci durée bu longue. de sorte que échéance yi ngay fay par weer en général. dina néew sax 100000 wala mu toll ci 100000. loolu mooy li nga xam ne moom la client bi di war a fay. donc sa question bu ñëwee ba banque bi ne ko lebal naa la. quatorze millions par exemple prix kër gi mhm. bi ñuy yokk taux d'intérêt banque bi parce que banque bu la lebalee dina ci yokk taux d'intérêt bi mm-hmm. mais négocier nañ ak banque yi signé nañ ak ñoom convention de sorte que taux d'intérêt boobu tey taux d'intérêt bi gën a baax ci marché bi la mm. lu gën a yomb ci marché bi la mm-hmm. de sorte client bi bu doon dem di lebal boppam du ko mën a am mm-hmm. mais ñun suñu lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ak le secteur bancaire moo ñu mën a permettre ñu négocier loolu di remer di ci profito di remercier APB mm. à travers son président le client bi dañ koy day fay échéance boo xam ne du chair sur plusieurs années. Mm-hmm. d'accord comme ni ma la expliqué léegi bu ñëwee duñ ko laaj dërëm. Mm-hmm. du joxe frais de dossier du joxe frais de profilage du joxe dara du joxe apport du joxe garantie suñu demee nag ba banque bi choisir ko ne lebal naa la 14 millions. Mm-hmm. mu signer contrat ak promoteur bi signer contrat ak banque bi. ok mook promoteur bi contrat la pour kër gi mook banque bi contrat pour prêt bi mhm. bu signé contrat yooyu yëpp nag ci la ñu doog a la remise des clés yooyu en général dañ koy def ak suñu autorité xam naa dinañ ci ñëw léegi mhm. pour expliquer le prochaine remise yi nga xam ne prévoir nañ ko d'ici la semaine prochaine pour les bénéficiaires de ces logements là ñu ñëw autorité yëpp toog ñu jox ko caabeem bu ñu ko joxee caabeem mu dugg këram nag ci la doog a contrat am ak banque bi doog a tàmbali. ci lay commencé exactement chaque mois mu génne loo xam ne sa avoisine les cent mille francs di ko fay ndànk ndànk mën nañ ne mooy location vente bi nga xam ne moo amoon avant. Mm-hmm. dinañ ci ñëwaat léegi d'ailleurs. Mm-hmm. loolu mooy yombalal gi nga xam ne amul dara lu muy joxe. amul keneen koo xam ne dina ko jox dara. Mm. là je tenais véritablement à faire précision. waaw précision bi c'est important parce que dina am ñi nga xamante ni dañ naan la euh, FHS dafay laaj ci xaalis parce que bon cas boobu noonu euh, mus naa ko gis koo xamante ni dafa ne dañ ko ne da ngay da ngay ay frais de dossier mu woo ma di ma laaj man na ko ah man de musuma dégg FHS di laaj xaalis euh, par rapport à sax donc c'est important donc de le dire que ne que duñ la laaj frais de profilage wala frais de dossier amul dara looy laaj soo duggee sa kër ngay doog a commencer fay donc ñaata kër ngeen joxe. alors programme bi fi mu toll mooy am na soo jëlee Bambilor Dakar d' abord. Mhm. am na ñaari programme yu nekk Bambilor yoo xam ne promoteurs yi livré nañ seen i kër. am na yeneen promoteurs yoo xam ne ñi ngi sur le même site de Bambilor au nombre de quatre ñoom ñëpp tàmbali nañ seen i kër mais livré guñ mais am na ñaar ñoo xam ne livré nañ ñaar ñi livré ñëpp ñi ngi ci procédure bi et puis procédure final l' étape finale de la livraison des clés. aux aux acquéreurs sélectionné nañu acquéreurs yooyu ñu ngi may dégg xam nañ chaque jour ñu ngi waxtaan ak ñoom ànd nañ ak ñoom visite ci terrain bi. Mm-hmm. ñëw nañ d' abord guichet unique ñëw fii ñu defal leen une projection virtuelle ak le promoteur ñu xool ñëw nañ fi rencontrer banque bi ñëw nañ fii rencontrer notaire. Mm-hmm. donc def nañ guichet unique ba pare. Mm-hmm. ànd nañ ak ñoom sur le site ñu visiter kër yi. apprécier ko seen bopp. Mm-hmm. non seulement dañu apprécier kër yi mais dañu apprécier niveau d' bi. Mm-hmm. parce que loolu également c' est un pan important di nga dem. safru ah, ñu jox la mm-hmm. éléments yi mais ñoom ñooy aménager lépp. am na hivernage boo xam ne fekk nañu fi mais amul benn inondation bu fa am. loolu également jar nañu leeral ko ndax instruction bu ñu jotoon ci chef de l' état la ñu def de sorte que. kër yi bu ñuy inondé kër yi na tabax bi baax mm. je pense que acquéreurs yi nga xam ne ànd ak ñoom ak samay équipe sur le site ñu visiter S2I muy Bambilor. Bambilor may dégg ñoom ñoo apprécier seen bopp. Mhm. ak ak ak yooyu tey ñu ngi ci étape bi. étape finale bi ñoom ñoom ça veut dire que yow ànd ak acquéreur yi ñu organiser. Mhm. ak le ministre la remise de ces clés parce que ñu ngi ci étape finale bi. Mhm. procédure bi ma la décriral fii mu nekk le parcours de l' mu commencé woon ci inscription bi profilage bi garantie bi. ak euh, financement bi. étape yooyu yëpp franchir nañ ko tey ñu ngi ci les derniers mhm. pour ñu remettre leen seeni i clé loolu mooy. Bambilor. Mhm. mu nekk deux promoteurs. Mhm. beneen bi président de la République moo ñu joxoon instruction ne nañ ko jébbal sénégalais de la diaspora. boobu mën naa ne ne commencé nañu remise des ah. parce que président moo ko amoon yéene. joxel ko boppam. donc ñu organiser woon une cérémonie au niveau du palais euh, de la République. Mmh. président premier acquéreur yooyu bu deuxième site Bambilor moom moo leen joxal boppam clé yi. Mhm. ñeneen ñi ñi ngi def euh, les procédures on est presque à l'étape finale pour jox leen ñoom ñëpp seen kër donc ñi nga xam ne woon nañ leen Bambilor ñëpp sur ces deux projets. Mhm. ñi ngi waaj a jot seen caabi ñeneen ñi nga xam ne. Mhm. jotaguñ seen caabi wooguñ leen également ñu leen di rassurer ne leen process la procédure la. suñuy kilifa également dañu jox instruction ñu bañ a jaay ay illusion jaay illusion mooy lan woo nga inscrire ñu woo la profiler la alors que amaguñ kër guñ la jox donc dañuy fexe ba def adéquation entre l'offre et la demande mm. chaque fois su ñu amee offre de logement une production qui existe des livraisons par les promoteurs ñu doog a woo les clients profiler leen def procédure normal pour jox leen seen kër donc kuñ ci woo rek dañ la jox kër ku ñu woowagul xamal ne dañ la woo mais dañu bëgg adéquation entre la production et la livraison eh mais, mais, mais justement sama question day ñëw ci ci loolu parce que euh, déjà boobu réponse rapide la <laughs> laa si soxla am na ñoo xamante ni dañoo jàpp ne mbir mi politique daf si laxasu euh, peut-être euh, benn élément de réponse par rapport au profilage ñii di ñii di inscrire ci naka lañ leen di tànnee très rapidement pour xam que ne que ñu xam que ne que peut-être que ne que euh, voilà yéen duñu doo leen tànn généralement ñii ñuy tànn seen profil xamoo leen. voilà Dieynaba dama nekkoon di répondre sa première question pare gu ba nga nga def deuxième. <laughs> mais dinaa enchaîner répondre ñaar yëpp. Mhm. première bi da nga ma doon wax fu ñu toll. waaw rek laa yemoon. expliquer ak les deux yi nga xam ne. Mhm. livré nañ yeneen yi mi ngi continuer. waaw ñu woo. nañ dalal seen xel léegi ñu jot seen kër ñu ñu woowagul également dinañ leen woo parce que foofu ñu ngi avancé. waaw bu ñu jógee Bambilor Kébémer dem nga fa visite. foofu également livré nañ logement yi acquéreurs yi sélectionné nañ leen. profilé nañ leen seen dossier mi ngi banque bu jógee mhm. banque rek ñu commencé les livraisons mhm. bu ñu jógee Kébémer ñu taal suñu oto dem ba Kaolack Kaolack également mhm. promoteur bi livré na ah, sélectionné nañ acquéreurs yi profilé nañ leen profilage ñu ñoo dem ba foofu fekk leen ci lépp ci yombalal gi ñu suñu kilifa digal ñu def ko Sénégalais yi. également ñu ngi ci dernière étape bi prochainement dinañ. dinañ région yi moom am nañ doole. exactement. bu ñu fa jógee ñu ñëw Fatick pareil Diourbel. ak Thiès. cees nag véritablement mooy programme bi nga xam ne. foofu am nañ fa ay livraison yu bëri. de sorte que semaine prochaine incha allah dañ la invité. moom lañ jàpp pour euh, jox les premiers acquéreurs yi nga xam ne. Mm-hmm. ñoom it def nañ procédure bi yëpp. def nañ guichet unique mooy sélectionné nañ leen def nañ profilage def nañ garantie def nañ financement bancaire. mooy bi nekk nooto. bi nekk nooto def nañ mhm. financement bancaire. Mhm. jox leen caabi kese moo ci des. moo ci seen prochaine dañ jàpp bis ànd ak yow. ñu jox leen jox leen seen caabi ma ñëw maintenant sa deuxième question. <laughs> procédure profilage bi nan la tëddee au début wax nañ ne. sénégale bu nekk ak foo mën a nekk 3w 100000 logements point comme wala point sn nga inscrire am sa numéro. Mhm. xam nga loolu non seulement c'est transparent mais c'est démocratique. parce que kum neex nga inscrire. boo inscrire woo ba pare kan la ñuy woo nee naa la bëgguñu jaay ay illusion mhm. duñu woo koo xam ne fi nga ñaan tàmbalee guñ fa. Mhm. xam nga yow yow mi jëy na ba point un nga ñaan point un amuñu fa programme. Mhm. foofu amuguñu fa programme muñ la muñ la woo di la nax loolu duñ ko def. mais bu fekkee da nga ñaan Bambilor wala nga ñaan Kébémer wala nga ñaan Kaolack wala nga ñaan Notto Diobass bii mm. foofu tey am nañ fa ay logement dañ lay woow mm-hmm. suñ la woowee boo ñëwee profilage mooy lan mooy assurer wu conformité li nga déclaré woon bi ngay inscrire ci plateforme bi mm-hmm. ak say revenu yi nga xam ne moom nga ñuy indil kayit yooyu mm-hmm. conformité boobu rek la ñuy assuré wu nga jox ñu ko parce que fële déclaratif la woon gis nañ ko nga bind ko wóoruñu ndax am nga ko mhm. wóoruma ndax maçon nga wóoruma ndax artisan nga wóoruma ndax fonctionnaire nga mhm. li nga déclaré wóoruma nee nga am nga 300000 de salaire nee nga am nga 400000 nee nga am nga des revenus agricoles nee nga mosoo am kër exactement yooyu yëpp mhm. wóoruma soo ñëwee jàkkaarloog équipe yi nag ñu posé la question yooyu yëpp nga génne joxe boo joxee këyit yooyu ba mu mat nag laa loolu mooy profilage ñu jël yóbbul banque bi loolu ñan la ñuy woo Bambilor am na un programme boo xam ne premier promoteur bi livré na 200 logements deuxième bi 270 ma xam ne am naa fa au total 470 logements. Mhm. ma xool ñi inscrire woon les 470 premiers ñu woo leen ñu ñëw. duñ woo 470 kese dañ ciy teg benn marche. Mhm. mu nekk liste d'attente parce am ñoo xamante ni duñu éligible matal lu ñu respecté wuñ critères yi. là également il faut le dire. gouvernement teg na politique boo xam ne politique sociale la. musul am Sénégal en terme de oyofal. parce que état mooy joxe foncier gratuitement état mooy réaliser aménagement yi gratuitement état moo lay accordel ay exonération fiscale et douanière gratuitement garantie bi la doon banque bi laaj à pour cent état moo lay joxe donc état li mu def ci projet bi bu ñu ko doon xayma dina wat dina war a mat 8 millions loolu moo tax dans le décret qui définit le logement social boo fa demee le prix du logement est à 20 millions donc état bu jëlee décision jaayee la ko 12 millions mooy état la 8 millions sénégale bu nekk war nga mën a def à partir de ce moment un petit effort. ñu xam ne que kër yi duñ ko maye. moo tax ñu teg mm. critères yooyu. Mm-hmm. critères yooyu nag. Mm. ñun bu ñu la woowee loolu la ñuy vérifier est-ce que satisfaire nga ko. c'est ça ak koo mën a nekk nag. Mm. ak foo mën a bokk nag soo ñëwee satisfaire critère yooyu. man su ma la faralee sax boo demee banque bi du la faral ndax banque xam nga ni moom àndut ak kenn banque ki mu àndal mooy ki mën a fay quel que soit garantie bi état joxe soo mënul fay banque bi du la mën a jox euh, prêt donc amul benn yoon boo xam ne mën nañ faral kenn suñ la faralee fii boo demee banque bi da lay génne waat parce que boo amul capacité de remboursement neenaa état def na effort bu rëy ci njëgu kër goo xam ne 20 millions la état joxe la 8 millions di la laaj presque ay 100000 par mm-hmm. mois ku ko munta joxe véritablement amul benn possibilité bu ñu mën a am jàppale la donc vraiment transparent na critères yi leer na ku ci am looy respecte sax boo ñëwee ñu tegal la critère yu lay ku ñu éliminé boo ñëwee sax ñu expliqué la lu tax ñu éliminé la am na ñoo xam ne par exemple dañ leen doon éliminé ñu dem ba ci biir am évolution de revenu suñ ñu ko indilee ñu dugalaat leen jël seen dossier yóbbu ko banque bi. Mhm. donc vraiment les critères sont clairs sont transparents véritablement amul benn njuuj njaaj bu ci am kenn ku nekk acteurs yi nga xam ne sélectionné nañ leen tey. mën nañ ko wax dinañ dem ci terrain bi bu ñu leen di jox caabi ñoom ñu defal seen bopp témoignage amul kenn koo xam ne ñun xamoon nañ la avant dañuy interroger plateforme rek gis sa tur gis sa téléphone ñu woo la mhm. bu la woowee nga ñëw c'est la première fois lañ lay gis c'est ça boo satisfaire condition bi ñu avancé procédure soo ko satisfairewul nag wax dëgg yàlla ñu xam ne parce que sénégalais yu bëri aussi euh, Ousmane Wade dañuy euh, sànq wax nga Euh, plateforme bi te du ñuy jot ay information par rapport euh, un peu ci seen seen inscription euh, maintenant comment est-ce que nañu mën a teg en place benn plateforme bi nga xamante ni aussi dinañ leen mën a jox tamit des informations pour mën a dalal xel aussi exactement direction générale de la construction et de l'habitat def na lu ñu tuddee benn plateforme de suivi donc au-delà plateforme inscription am na plateforme de suivi donc boo demee plateforme inscription kenn ku nekk ku inscrire ku nekk boo jëlee sa login ak mot de passe boobu dugg ci plateforme de suivi bi di nga xam fu sa dossier toll. loolu mooy premier élément bi deuxième élément bi sénégalais bu bëgg information également def nañ fii benn numéro de verre boo xam ne boo wootee rek ñu ju wax la fu sa fan la sa dossier toll. jox nañ mail joxe nañ adresse site site bi également boo fa duggee envoyé. suñu équipe yi tout le temps chaque seconde ñi ngi connecté. Mm. inform euh, question boo posé rek ñu répondre la. donc heure boo joxee sa numéro d'inscription rek ñu wax la fu sa dossier toll dinañ la woo yaa ngi profilaay sa dossier mi ngi banque étape yooyu moo am soit woo nañ la wala woowaguñ la. te buñ la woowul rek day fekk fi nga demandé moom moo. disponible moo bu disponible. Mm. parce que wax dëgg yàlla sert à rien nga woo sénégalais bu inscrire te amagoo loo ko proposé. heure buñ la woowee rek boo egsee rek dinañ la da nga fiy fekk promoteur bi d'ailleurs mu visiter la une visite virtuelle wan la kër gi. après ñu organiser la visite sur le site physiquement nga ñëw xoolal sa bopp kër gi mm. donc bu ñu la woowee rek xamal ne am na proposition bi lay di dalal xelu ñi nga xam ne wooguñ leen programme bi ministre jël na ay mécanisme signé na ay convention ak ay partenaires internationau parce que on a des partenaires nationaux on a jusqu'ici démarré avec des sénégalais yoo xam ne ñi ngi produire ay logements ñu boole ci ay partenaires extérieurs yoo xam ne pour accélérer la pour fair face véritablement à la demande bi nga xam ne woo wooguñ leen ñu mën leen a woo ñoom it rapidement ñu bokk ci ñi nga xam ne dinañ mën a am kër et prochainement je pense que jël nañ disposition yi ak convention yi ministre mujj signé c'est des partenaires yoo xam ne am nañ ay capacités technique am nañ ay mmh. capacité financières mmh. de sorte que nous nous sommes fondés nous sommes sûrs que ils vont booster la production ils vont accélérer la production de sorte Sénégal yi nga xam ne leen dans les prochains jours am nañu yaakaar woo leen bu ñëwee ñoom ñëpp ñu mën leen a proposer kër ñoom it ñu mën a jot seen i caabi en suivant le même canevas qui est clair qui est transparent. C'est ça. ah en tout cas ñun ñu ngi xaar euh, euh, caabi yi. incha allah <laughs> on va on va suivre tout ça et je pense que euh, euh, en termes de information donc leer na. que suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan dinañu xam ne que liggéey bi yombul parce que tamit wuti xaalis la. du rek état bi jàpp na ci bu baax a baax. mais kër tamit il faut que ñu ciy dugal ñu ciy dugal xaalis. yéen a ngi ci profilage en tout cas ñun lépp lu ci jëm ci wàllum information dinañ ko rek ànd ak ak suñu mbokk téléspectateurs yi euh, mais tey il fallait que ñu wax xayma liggéey bi fu mu toll te yaakaar naa ne leer na léegi ci bopp ñu ci Ousmane exactement mhm. mais merci beaucoup Dieynaba honnêtement <laughs> dañ lay remercier waat bu baax parce que mhm. jox nga ñu occasion ñu mën a leeral fu ñu toll ci programme bi ndax comme ni nga mhm. waxee questionnement yi bëri na c'est l'occasion ñu leeralal Sénégalais programme bi mi ngi dox c'est un programme social ñi nga xam ne jot nañ seeni i caabi wala ñi ngi koy waaj a jot semaine prochaine mën nañoo def témoignage ndimbal gi nga xam ne état du Sénégal apporté na ko ci ba yombalal leen en tout cas suñu mémoire xam nañ ne politique sociale politique de l'habitat yàgg na Sénégal mais mhm. politique boo xam ne am na yërmande à ce niveau la véritablement ñu ngi koy doog a gis pour jàppale Sénégalais yëpp ak foo mën a nekk récemment euh, sànq ñu ngi koy wax de delà de mécanisme de garantie bi nga xam ne état du Sénégal teg na ko pour jàppale Sénégalais yi am na un fonds de bonification également bu mu teg bonification mooy lan kenn ku nekk xam ne ni banque bi bu lay lebal dina am taux d'intérêt bu mu la appliqué. Mhm. tey taux d'intérêt yi moyenne bi mi ngi avoisiné presque les 7 pour cent ñu teg benn euh, fonds de bonification boo xam ne mooy jàppale sénégalais ci taux d'intérêt boobu. Mhm. donc am na catégorie sénégalais boo xam ne au ñu koy defal garantie dañ koy bonifier taux d'intérêt. Mhm. su taux d'intérêt bi nekkee 7 pour cent ñun ñu jàppale ko ci 3 pour cent. bu ñu ko pour cent yi moom 4 pour cent bi rek lay fay de sorte que léegi salaire am. wala revenu yi muy am dina ko mën a permettre ñu yombalal ko mu am kër loolu également beneen mécanisme boo xam ne la ñi ngi koy appliquer actuellement pour jàppale le maximum de Sénégalais notamment les les les fonctionnaires fonctionnaires yi nga xam ne seen revenu tourne autour de trois cent à quatre cent mille ñooñu bu ñu leen appliquer taux d'intérêt banque bi ak leur durée d'activité restante. Mhm. en général ñu mën a jàll. wala li ñuy li ñuy fay day ëpp ay deux cent mille. Mhm. te ñun suñu yéenee yéene suñuy kilifa mooy ñu fexe de sorte que sénégalais bi li muy fay bañ a dépasser les cent mille. Mhm. pour mu bañ a dépasser les cent mille nag pour sénégalais bu am niveau de revenu boobu ak durée bi ko desee ci activité am bëreetul. kooku il faut ñu bonifier ko taux d' mooy ñu fayal ko une partie de son taux d' intérêt mm-hmm. loolu également ñi ngi koy def pour jàppale le maximum du Sénégal am na beneen mécanisme boo xam ne doo jaar ci banque bi boobu moo gën a yomb sénégalais yu bëri moom la ñu xam suñu papa yi suñu yaay yi bu njëkk ñëpp ci lañ jaaroon location mm-hmm. vente ba mën a am kër temps SICAP temps SNHLM loolu lañ indiwaat ak travers convention bu ñu signé ak Cajum Capital muy waa FONSIS mm-hmm. président de la République jox ñu instruction suñu ministre nañu nañu signé Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom moo jiite fonds souverain des investissements stratégiques muy FONSIS ñu teg benn société bu bees bu tudd Kajom Capital lëkkaloo ci ak ñoom mm. société boobu mooy jënd kër yi léegi su ko jëndee duñ jaar banque mm-hmm. moom mooy jël sélec sénégalais yi nga xam ne sélectionné nañ leen mm, ñu jox leen kër en système de location vente location bi ñu doon fay euh, dans le système de location simple moom te duñu am duñ moom seen kër moom lañ leen di indilaat même système boobu. Mhm. mais cette fois ci nag ñoom ñooy moom seen kër. mais mais très rapidement pour terminer SNHLM aussi ak. Euh, SICAP da nga leen jàppale tamit. SNHLM SICAP également instruction yi ñu président de la république jox na nañu redynamiser ñi nga xam ne ñooy les promoteurs publics. ñooñu vraiment li nga xam ne moo nekk Dakar fii yëpp ñoom ñoo ko fi tabax. Mhm. dans les régions néew na ngay dem ci département boo xam ne gisoo fa HLM. ñooñu véritablement ils ont toujours fait la fierté. dans le secteur du logement ñu président dana nañ leen jàppale bu baax a baax ñu mën a produire contribuer bu baax mhm. ci programme 100 moo tax mu jox ñu ndigal ak suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow mu superviser suñu signature bi ñu def ak SICAP def ko ak SNHLM fonds pour l'habitat social war leen a jox ay ressources yoo xam ne mhm. dina leen mën a permettre ñu augmenter seeni i capacité productive donc ñaari société yooyu bu ñu daan produire 300 wala 400 par année dinañ produire léegi 1000 logements par année pour mën a satisfaire la demande des Sénégalais mën a satisfaire les besoins de de maximum de Sénégalais. d'accord loolu moo indi convention boobu ñu signé ak SICAP ak SNHLM. on va suivre de toute façon Ousmane Wade di la remercier bu euh, euh, baax malheureusement le sujet est tellement important tellement condensé euh, on woon ci waxtu jeex na mais on va revenir par d'autres questions liées au financement et à l'accompagnement ci wàllum logement sociaux yi. Mm-hmm. wax naa ko nee naa ko logements sociaux benn structuration de financement boo xamante ni bu dëgër lay nekk pour mën ko rek euh, daal di accompagner en tout cas merci beaucoup euh, Ousmane et puis on se retrouve très prochainement di gërëm bu baax mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan merci of may euh, ci caméra bi ci montage bi comme d'habitude Tafa Dioum on vous donne rendez-vous inchallah la semaine prochaine muus mi baax na ci kër gi ne saa yu ko tuddee waxaa